non nekkul bon neexul mais xoolal femme noire femme africaine. non man xamul lu ma si c'est que jigéen ji ngay xam sa wàlloor. Hmm? master la fi tudd nii yaa ngi mel jongo ma dix-huit ans. jàng fàttali ko benn way. waaw boobu yow lañ ko wayal bi xam nga loolu. ndee faatu góor moom door la Olosé. xam nga ni ma woo dee ba léegi. wala moom waaye bii day ñëwaat si man day reflété si man beneen bi mooy gis nga jigéen dangay sol sol bu rafet sol gis nga jigéen boo solee taille basse nga def sol musóor tagal ko wendal ko ñu xamuñu sax lan moo rafet si jigéen waaye sol loo xam ne day def. hélas trop. ah lu rafet sol lu bàyyeeku. waaw foo. Oh. sa yaram cëpp. dangaa dégg. sa yaram bi daal di nooy. <laughs> dangaa dégg na. ah foo ne. <laughs> dangaa <laughs> yow. Ah. noo du caan ak li nga tegalee. te daa nga àdduna bët. jigéen ngalam. loolu rafet na rafet na. su ko pour mu waxtaanaale parce que xam nga ni Zeng li muy def ne dara neex ma ci yàlla mm-hmm. depuis émission ba tey. awal pexe sëy mu fa teg waaye yaakaar naa ne bu dul woon sëy amul sa toog ci xalaat loolu parce que bi ma doxalee neexul jël journaliste di ko bu ootoon moom jàpp xaalisu gars yi di nekk bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen bàyyiwul mag bàyyiwul sama xarit dara zeng lu ñëw mu lekk moom jàpp ne daal xaalis moom moom waru taxawaayam lekk rek la ci war a def naqari na ma trop wax dëgg yàlla vraiment sérieusement yow du ma la du ci du ma la ci jàppal daf man am naa man am naa lu ma làkk ni ma fond de moi xam naa ni mosuma foog ne àdduna dina dem a dem a dem ba alali àdduna jarul maanaam muy toog ci plateau télé man di yàq sama der wala di jël sama soxna par exemple di ko taxé de maanaam yëpp nan la mën a dama xam sëñ nan la mën a invité nit nit ki toog zen di ko poser ay question ci sama jabar man ci koo xam ne moom moo ko takki moom dem moom moo bis ba mu koy takki ma yëkkati xaalis sax di ko jox dañu man non yaay man maa yow lu fa war dem man dinaa ko jël ci sama poos dinaa ko def bis boobu dama kontaan ba samay bi ma taxawee maa moom jàkkaarloo bi ma gëmmee sama ram ba joroon tuuroo kooku wëlbatiku dem ba alali àdduna jaral ko moom muy toog ci plateau télévision tey par exemple di yàq sama der man ak sama soxna kooku nga xam ne moom moo koy indi. xam nga déedéet li ma nekk si yow dangaa joŋe nag boo yàq it yow man woote na allo. ka waxtaan. ci loo nekk yow. yaa ngi jàmm. bagage yi gisee ngi ci biir kër gi nii nii nii nii nga wax ay waay man fan laa jëm allahu akbar allahu akbar allahu akbar baax na maa ngay moom allahu akbar nan la day fàttali xel lu xew ah kaw yi moom man tamit tamit sama habitation mun naa am année doo koor. kaw sama rakk la gisee di génne léegi léegi ah. léegi nii. sa rakk mooy de. dee kaw ah, waaw lu xew. da koy génne Issa moo ko fekk di génne bagage am ndax fay weeram bii paase. Issa plusieurs la wala Issa mu la la. ñoom ñoo yor kër yi ñoom ñoo koy boo weer dee ñoom ñoo lay laaj xaalis bi. ah waay sama xel bi man tiit naa sax man pour. ah xam naa IC ah IC mooy ñuy yor kër location yi. mi ngi noonu nag ñun dañ ko fekk nee na fayul bi passé ak wala weer wala ñu ñaari weer ñu ngi koo génne. mais nag kaay moo wax la droit de location dafa am nit ñi dañu war a xam locataire bi dafa war a xam droit bu mu am si lu mu luwe waaye ki ko luwe tamit dafa war a xam droit bi mu am si ki mu luwe ndax. nit ñëw ne luwee nit boo pare rek nga xëy xëy rek ne ko génnal kooku droit locataire mayegul lool waaye locataire bu ñu la yónnee notice ñu yónnee waa la notice mooy que ne jox nañ la ndigal wax nañ la yëgal nañ la ISRA bu ñëwee bu defee constat sa bagage. daal ak lu ci xew mooy Zeng daal bu ko may dara léegi nag beneen bi mooy dama sama benn ko mais moom fekk si nekk fi woon parce que doon voyagé di ñëw dafa dañ ko am ni ko defoon te xam naa ne loxo nit jiitu ci. digg boobu ba tey nan la ko dugg ci kër gi ci mbedd bi ngeen féete sànni daalam carrément te mun naa ne mënoon naa ne personne moom moo yoroon famille bi mu ne nii nag moom nga jaarale no que xëy na ñàkk ñu ngi ko jàppale wala dara parce que man am naa sa émission bu baax xam naa tamit compétence bu ma am. ñebe say ñun róomu leen sax. ñu ñi ngay gisanteel ñi ngay toogale seen xam leen bu ma sañoon daal nga dimbalee ma jaarale ma ko parce que du ko ñëw di ma ko expliqué ma nekk ci yow laa indi ndax Zeyna gëmulul xaalis te kay sama xarit la. non en fait moi des émissions yoo xam ne bii ne ay émissions yu gars yi nit ñi di dimbali ay nit ay doomu aadama j'ai des partenaires j'ai beaucoup de partenaires j'ai beaucoup de partenaires yoo xam maa ngi liggéey ak ñoom ci côté social. J'ai aussi des partenaires au niveau de l'extérieur, j'ai des partenaires au niveau de notre pays. Ici au Sénégal, il y a des ministères. Oui. Le ministère de la Famille, le ministère de l'Emploi, le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Économie et des Finances. Ah, non, non. Je travaille aussi avec eux. La sécurité, la sécurité parentale, oui, oui. par exemple. Il y a aussi le cas des tout petits. Okay. Je travaille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et je vais voir, je vais regarder mon, mon je vais regarder mon agenda. Bon, je vais regarder. Oui. Après, je vais voir comment faire pour avoir des sponsors. Oui. Oui, avoir des sponsors pour elle. Bon. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de gérer ça. Je vais essayer de gérer ça. Zeng, on va le Mais Zeng, non, non, je ne veux plus parler de lui. Oh. Je ne veux plus parler de lui. Parce que lui, c'est un, un, amateur. Moi, je suis un professionnel. Ah, Moi, waaw loolu xoolal wees na loolu na ndax jamono ji moo neexatu gaaw jamono ji neexatul diggante weer ak morom ma dafa jege te léegi fayatuñu salaire bu baax xam nga lan laa bëgg fi mu nii te weer bi deewagul nga lebal ma loo xam ne damay dem fayal ko ko mu toog ci kër ga. non du ma la ko fayal du ma la ko lebal ay may lebal la pour xaalis non du ma ah. def loolu. dama koy fay directement. Ah. ndax yow moo tax xam nga loo gis. dafa am fu muy jóge dafa am nu mu commencé yëg mu commencé former fi sa xamaguma nag après lan lay nekk. Ah. mais am na lu may commencé yeegi nag. waaw waaw après yëg-yëg boobu après ñu lijjanti ko gaaw. am na daal lu ma yëg si sama xol ko. ma dem lijjanti ko waaw léegi dinaa la jox xaalis bi ngay dem ngay gérer situation yi. amul benn problème mais jàppal ne nag yow yaa tànn sa rakk boobu taxul de. dëgg la waaw ndax li ma yëg si yow est ce que ay science. maa ngi koy science kay. xam naa ah, ah. ay science ay science te fel na. waaw ay science. amul benn problème ah dinaa ko war a lekk damaa doyul si sa kanam. loolu ma si sa kanam. naan naa waaye sama boo xëyee di ma xaalis ma yóbbu. mun naa def raxas raxas moom moo mooy tax sa bopp. <laughs> xeelu moom du xeelu xeelu. ma ngay tànn bu leen xeelu. mel ku la jéem bi ah moom mooy nga sax nga moom moo génne. daa ngi <laughs> <laughs> lay jàllal mu ñëwaat dama dama doxali jóg. léegi mu sala jóg.